maaraa ku ubbeeku ku ne nag ba pare mhm. ñu jékki-jékki ñu na rab rab rabala tëj waaw baa nga feebar mhm. ñu ne rabala feebar mhm. baa ñu dàq la sa liggéey ñu ne rabbee yàq si sa liggéey mbaa ngay naan sàngara bay tërëf ñu ne rabbee lay mandiloo mbaa ngay wër di def lu bon di cagatu ñu ne rab bi moo koy fexe tax fi fexe caga rab moom mën na loolu yëpp ci nit waaw rab mën na lu raw loolu ci nit léegi lan moo tax rab bi da ko def nit ki moom lan moo tax rab bi def ay moroom rabam waaw rab rab xam nga li ko neex moom mooy dugg ci nit ki yàqal ko dafa ñiram moom waaw li lu mu ci jublu tax a gudd fan wala lan moom ay mbiram la moom daa soxor rek daa soxor rek xam nga rab moom yàlla moo ko booleeg ñun ci ci àdduna waaw moom mun day yàqal doomu aadama yi rek léegi yow mën nga ci dara yow yow ku rab dugg yow jàpp ko tey la ñu andil la ko yow sa kër mu toog ki rab dugg saytaane dugg ko ba nga xam ne maanaam day jaaxal ay mbokkam waaw kooku mu ñu yow danaa faj moom waaw bu ñëwee danaa faj ci nan waaye nag képp ku may fajal rab ku mën a doon danaa tur deret ba noppi dootu laa faj di nga xam nga xanaa xamuma ne bari na sëriñ soo xam ne dañuy xëy xëy rek seeni mbir yàqu ci loolu moo leen moo yàq seen mbir hmm. maanaam rab doo ko doo ko doo ko faj ba noppi bàyyi kooku rek mu dem ci noonu noonu maanaam te tuuroo deret rab hmm. parfois da da ngay faj nit ba pare moom mu ñëw wuta maanaam bëgg koo dal ci sa njaboot maanaam bëgg a yàqal sa njaboot hmm. wala bëgg tamit téel a doo am doom yooyu da koy def day fayu moom day fay moo tax rab nag bala nga koo bala nga koo tàqal ak nit ki ba pare na nga wala nga xam fi nga koy teg ba pare wala nga man ci moom dara lu wér nit doo jekki-jekki ni rab rab rab moom a jàpp rek nga bind dara jox ko mu sangoo ko dem rab bi gën daa sonal yow yàqal la. waay indil jafe-jafe yow. moo tax sëriñ da ngay gis sax sëriñ si ñu bari sëriñ si ñu bari dañ ko jàmbat dañ ko jàmbat mm. am na sëriñ soo xam dañ may woone ma man damaa faj diw nangam jële ci ay gàllankoor hmm? damaa faj diw nangam jële ci gàllankoor loolu rab moo koy def am na nit ñoo xam ne saa yoo leen fajee ci rab hmm. jëlal dara teg teg teg ko ci kaw wutale ko loola jëlal jëlal dara teg ci kawam waaw wutale ko loola maanaam fante ko hmm. loola faaw nga neexale maanaam faaw nga neexale ñu ñi ci ëpp nag xar mu weex tàll la bu fekkee yow xam-xam bu weex ngay liggéey moom xar mu weex tàll moom nga leen di wutale saa yoo fajee nit ba rab génn ci moom. te rab nag càngat dong génnewu ko. ay jat ak ay saa yooy sangat sangat rab saa sangatu sangat nii. Mm. rab bi day génn dem taxawee ne ba nga pare. ba wow mu a nga mu dugaat ci yow àndaat ak yow. moo nit di sangu sangu ci rab ba sonn du gis dara loolu moo koy waral. am na ci nag dañoo ñàkk digg seen rawxaan moo waral maanaam mën nañoo sangoo gàllaaj gune mhm. woo sëriñ bu ne la woo sangoo ci moom gàllaaj gune te lam leen jox du baax la de mhm. waaye nag sëriñ sa nag damay wax ne maanaam loolu tamit sëriñ tamit dafa war a jàng jàng goo xam ne day xam nit ki li ko war a gàllankoor mhm. maanaam comme baxan rawaanam moo ko gàllankoor lan moo ko gàllankoor ba tax na maanaam gàllaaj bu mu sangoo du ko jàpp d'accord loolu day am jërëjëf marabu am na ñoo xam dañuy sang bay bëgg gis dara gis dara loolu nag ci rawxaan koy def d'accord waaw leer na marabu jërëjëf gaa yaa ngi may dëyee waxtaan we neex moo tax temps bi day gaaw a jeex te damaa dese ay question ndax nag bëgg naa nga dimbali doomu aadama yi ndax góor yi fi dox fii yëpp di sanseeg di sol lu rafet ak di jaay jomba ñaaw ak yooyu te buñ demee seen kër seen jabar ciifatu leen bari na fi dëgg la néew kàttan gi góor moom kàttan nag maramu waaw kattan moom dama cee yor loo xam ne moom la ñuy wax le roi ah waaw le <laughs> moom bari na ko xam lool ah le roi waaw ko waxee rek bari na ñu ko xam lool lan la loolu da nga koy suur wala da nga koy naan wala da koy takk wala da nga koy loolu loolu maanaam boo néewee kattan ba néew kattan ba mënoo dara maanaam boo bu fekkoon une minute ngay def rek daanu waaw ko jëfandikoo insha allahu rabbi da nga dem ba sa sedd ah waaw ci kattanu yàlla muy le roi damay wax nag man damaa wax ne képp ku ma ko jox bu fekkee ne gëmoo loolu dangay ñëw nga ànd sa soxna man boo ñëwee am naa fu ma la mën dalal nga essayé garab <laughs> billaahi wa rabbul kaxbati barke alquran karim waaw wax naa ko waxati ko nag maanaam képp koo xam ne maanaam da nga ko am ci am ak benn weddi ñëwal boo ñëwee ma jox la maanaam garab gi nga naan ko ba noppi nga dugg sa soxna te li ma jox nag naturel la. waaw garab bi réew yi rek laa la waaw du ma la jox loo xam ne dañ maanaam comme ni ko yeneen ñi gars yi. waaye sunguf yeeg du ma la jox yeneen sunguf. ay bint yeeg ay leer nañ ñi laa la jox. waaw yoo ci garab yoo xam ne réew yi ni ñu ko yow yaa ko maa ko sama bopp maa ko dem ci garab jëndal ko sama bopp dëbbal ko sama bopp defal ko sama bopp ba mu mel na ma ko bëggee ma doog ko jox doomu aadama yi Hmm. te du lay benn jafe-jafe nag muy néew kàttan muy néew kàttan am naa ci boo xam ne nag maanaam mm, ci alxuraan lañ ko def lépp alxuraan waaw waaw ci alxuraan lañ ko def boo xam ne moom bu sa awar moom boo ko naa ne ala sa awar gudd ah sa awar bu gàttoon ba xam ne maanaam munoo dara ci kaw lal waaw maa ngi wàcc yàlla billaahi wa rabbul kaxbari boo ko naan xam nga daa am baat bu ñuy wax baatu xaadiru waaw dama koy mayee sax loolo dama koy maye te yàlla rek tax waaw ndax ñu bëree bëri xëy na dañ koy bëgg waaye duñ mën a am accès pour mën a man mën laa wax loolu mm-hmm. am ñoo moom rëy nañ laa seen seen jàngoro. dëgg léegi am na baatu xaadiru. Hmm. boo calculé da maanaam boo calculé dafay tolloog Dakar. Dakar waaw. ñoo tolloo même chiffre. ci garabu ah, Dakar ñoo tolloo même chiffre. léegi maanaam da ngay da ngay wut garabu dangay dem ci daqaar ci garabu daqaar Dakar. Hmm. nga jënd fi Dakar waaye boo fa jënd boo fa jënd Dakar tamit dafa am noo ko jëndee naam ñas nga ko jëndee. naam ñas naam ñas. da ngay jàng da ngay jàng Fatiha jàng yaa xaadiru juróom-ñaari yoon wax ko naam ñas. boo dee ko nañes ba noppi nga daal di dagg ca garabu daqaar ga ca daqaar ya nga dag ko lii nag maam wuti wuti yàlla xam-xam ak garaaw kon daqaar ñes la sant na ko maam ñas li lan la ni abaa li nga andi nii li may xaadiru li may xaadiru gi waaw xar yi moom lu def sax xadiiru la def waaw xariiru lu mu def waaw baat boobu laal la wax de boo ko bindee baatub xaadiru nga bind ko soo ko bindee ba pare nga boole ko daqaar maanaam daqaar boo xam na nga dem jëndil ko sa bopp sa garab ga waaw nga ñëw boo ko ñëwee nga wut leget gu bees tàq laa la wax de leget gu bees tàq nga def ko ci biir mm-hmm. boo ko defee biir pare nga jël nga baatu xaalis bi da nga koy bind moom tamit da nga koy bind li mu li mu farju waaw farju wala li mu sawju sees sax baax na boo ko bindee sees moom baax na waaw moom moom mooy sëy li mu sëy sawju mm-hmm. nga ko boo ko ci bindee pare boo ko bindee ba pare nga boole ko moom jàmb ko ci biir ci biir lekk bees bi soo ko jàmmee bàyyi ko noonu ba bàyyi ko noonu nga fanaan ko foo xam ne maanaam dara du ko ko noonu nag ba bës set nga jam nga nga nga nga dindi kii bi garambaay beeg yëpp nga dindi ko nga naan ko nga di ko saxoo nag laa wax da doo ko bàyyi nag da nga koy def di ko saxoo waaw barke alxuraanul karim da nga ba sa kàttan du maanaam day jaaxal nit ñi day jaaxal say say say soxna wallaay lancim lii nag dama ko jox ñoo xam ne maanaam dama leen ko jox ñu dexee fe maanaam fi may wax yi jàmbatutuñ loolu très bien ça te lii may wax xam-xam dong la nag waxuma la loo xam ne non man kay marabu gisoo dama lay xoolee nii xam naa ne xam-xam nga wax waaye dafa am beneen xam-xam bu ma dese waaw ndax daf maa ñor